honorable ginnaaw bi ñu leen wàccee bu baax a baax a baax a bokk na ci li mën a jàppale di 100 jours yi nga xam ne naka waxtu ci régime bi yenn ci ne mooy bilan ak yenn ci nga xam ne moom président jot na ko fi. waaw kay jërëjëf soxna Fatima euh, xam euh, dañoo inventé benn concept de cent jours. Hmm. mais 100 jours mënul permettre nga juger action au gouvernement mm-hmm. loolu tamit ay euh, kiiw média la rek yoo xam ni parce que 100 jours mooy ñetti weer mm-hmm. ku ñuy soog a fal ñetti weer buñ xoolee ci ñetti weer yi ñu la fal kañ nga teg sa gouvernement kañ nga nommé seen ministre bañ jël ay service mm-hmm. ñi toog sax naan en 100 jour ndax gouvernement bi liggéey na wala liggéeyul xam nañ ni ils sont pas de bonne foi te loolu euh, du améliorer le débat public li ma bëgg a wax foofu mooy certes mën nañ apprécier par contre les premiers pas sur le plan économique politique social et cetera je pense que le président Bassirou Diomaye bi mu yéegee sur la direction gouver ak gouvernement bi mu nommé sous la direction du pré du premier ministre Ousmane Sonko mooy def d'abord les assises de la justice xam nga selon dëkk bu nekk da ngay xool ban secteur au moment bi ñu lay élire mënoon am un problème économique mënoon na am un problème social mënoon na am problème boo xam ne moom mooy tax nga njëkk def sa action action bi mu njëkk a def mooy les assises de la justice parce que Sénégal dafa traverse loo xamante ni muy une crise politique très grave bu engendrer une crise institutionnelle ba mënoon a yóbbu ci réew mi loo xamante ni yóbbee réew mi loo xamante ni njombe boo xamante ni heure bi xëy na ñun ñëpp duñu am sax euh, présence d'esprit pour mën a toog fi ak dal pour mën a toog fi donc méthode bi mu utiliser mooy nañ leen woo les acteurs de la justice sans euh, nga am ci benn a priori nga woo ñi nga xam ni mooy procureur yeeg juge d'instruction président tribunal nga woo les détenus walla la société civile ñoom ñëpp ñu daje dans un esprit de convivialité ñu génne sans haine sans haine benn wala déggoo fa benn magistrat bu génn ni saaga nañ ma ñi nga xam ni ñoo doon tëje ak ñi ñu tëj ñoo bokk benn salle ci jàmm loolu c'était très important donc yow nga njëkk def sa action sur nga def ko sur les assises de la justice nga xam ni bu justice bi changé wul ci réew mi dans tous les domaines parce que dañoo jàpp ni rek c'est sur le plan politique mais sur aussi le traitement de la corruption de la mauvaise gouvernance nan la ko justice di aborder parce que loolu mooy sunu problème dëkk bi mën nga indi recette économique yu am solo xaral loo ci xarañ xarañ bu dee justice bi doxul réew mënul taxaw économie dafa am base base bi mooy un boo xam ni judiciaire boo xam ni day rassurer le citoyen parce que loolu mooy fonde de légitimité mooy indi apaisement te dañoo dugg lu tax président teel a jël mesure bi da ngeen di jëm ci dëkk buy am exploitation pétrole gis nga loolu bu àndul ak justice boo xam ni farul fenn te dewul njaaxaanaay dëkk boobu jàmm du fa am donc première mesure bi loolu la te ñëpp je pense que saluer nañ le travail ñu ngi xaar restitution yi et pour la première fois je pense que am na euh, réforme yu bëri yoo xam ne nit ñaa ngi ko doon waajal ñu ngi ko denc ci tiroir yi cette fois yi dañ ko indi ci adjoindre ko expérience malheureuse yi ñu bind yi ñu dund récemment ñu ne cette fois yi li fiy juddoo dañ koy appliquer nit ñi xëy na ñenn ñiy wax parce que c'est pas même pas l'opposition xam nañ ni ce qui va se produire dina améliorer dina changer visage justice donc c'était pas juste une action euh, bu ñëw noonu te daf ko jox délai bu ndaw ñëwul rek bàyyi commission bi ni ko acca nekk leen foofu di réunion pendant pour gagner du temps quoi mu ngi noonu donc et des mesures importantes vont sortir de ces assises très très très importantes ba nga xam ni le sentiment citoyen bi mu war a am mooy bu duggatee tribunal du jël téléphone di woote kan laa fi xam kan ngeen may boo dontalee moo nekk ci dëgg di wut link di wut link ba mais du woon rek aspect boobu mm-hmm. dafa am aspect ba ci accès service public de la justice pour citoyen bi mm-hmm. nan ngay amee casier judiciaire di ko rang à alors que mën nañ la ko cliquer rek jox la nan la ñu améliorer fonctionnement wu justice ba ñëpp accéder ci ñëpp mën cee accéder am représentation et cetera et cetera donc première mesure bi. Mhm. ci 100 jour yi def na fi lool. deuxième bi mooy nga xool les urgences yi nga xamante ni mooy euh, nawet bi ñu dëgmal. Mhm. yan mesure ngay annoncé. nga ñëw ni déjà man fekk naa fi bor ak système boo xam ni de distribution des semence non seulement ça a cher à l'État. Mhm. parce que da ngay génne ay milliards jox ko ay opérateurs yoo xam ni dans une opacité totale ñooñu finalement la le le cultivateur paysan bi moom du ci jot wala bu ci jot dans des conditions terribles la finalement loolu nga ñëw en mois de cent jour parce que comprendre doon nga avant nan la système bi di doxee li ñu daan wax. Mhm. ba nga xam ne yow say premier mesure mooy nga couper nga def un circuit très court ba nga xam ne li ngay distribuer di nga ko mën a jël. yëkkati ko jox ko directement paysan bi. mu xam ni dans les circonstances actuelles. Mhm. je recours à l'armée pour ñu joxal ma ko et ce circuit court dalay permettre non seulement paysan bi jot ko. Mhm. mais surtout nga ekoon faire des économies yu am solo pour l'État nga jël beneen mesure wàññi njëg bi ñuy coow État nan la doon wàññee njëg. Mhm. day tibb ci gafa gi teg ay milliards fekk benn secteur ni leen subvention nga jël ay milliards mobiliser ay milliards. dugaloo ko ci njàng mi dugaloo ko fenn créé ci emploi nga mm-hmm. subventionné loo xamante ni boo ci defee subvention encore une fois. ki mm-hmm. am alal ak ki ñàkk alal sax ñoo ci yem. boo moytul sax ñi am alal la doon gën a profité. Mm-hmm. à chaque fois que dugal nga subvention bu dee ci wàllu gasoil la essence la ki nga xam ni moo am 4 x bu mag a mag a mag. di jënd trois cent cinq cent mille francs par mois. kooku mooy gën a bénéficier yow mi yor sa oto. te loolu ça coûte des milliards ñu ne bi yoon dañuy analyser et rapidement dans les trois mois mm-hmm. on va analyser la structure des prix mm-hmm. xool prix bi bi ñu ko jëndee à l'international transport assurance yeeg yëpp ba mu yegg si génn charge yeeg yëpp mais lii ñaata la war a jar laaj lan moo jaadu ñu jaaye ko ko mm-hmm. te entreprise bi am ci bénéfice au lieu man état ma ñëw ak samay milliards rek dugal subventionné nit ñi di ci gën a engraissé wu du ma def noonu donc je ma xool ndax prix yi prix bu ñu ko doon homologation doon am jaadu na mais mu ne la kaay yow nga toog yow mi jëndi woon ñaata nga jëndee temps ñaata nga transporté lan mooy say charge def nañ lépp ba pare léegi kon euh, saaku farine bi ñaata la war a jar suñ génnee sa charge yëpp ah est-ce que gisoo ni marge bénéficiaire bi dépassé na euh, quand même la pas l'entendement mais sori na est-ce que nga foog mënoo ko wàññi tuuti te loolu sa bénéfice la rek pas say charge biñ ko waxee gis nga ni finalement déggatoo ci coow. donc domaine boobu ñëw na nga ñëw sur le plan de la diplomatie les premier pas xam nga loolu c'est important tout le monde se disait ñi ay jeunes lañ amuñu expérience xam xamuñu état bu ñëwee ah am na ku ko doon wax yaa ngi xalaat Bassirou Diomaye fay toog ak Macron et cetera ñoom ñoo ko doon solliciter tey le président je pense que le monde entier ñooy téléphoner pour mu recevoir leen wala pour inviter ko parce que nouveauté la boo xam ni ñi comprendre de l'extérieur ñoom xam nañ lan la élection wu ñii di signifier pour Afrique les le système des Nations Unies ak les pays occidentaux comprendre nañ ni gis nga la modèle sénégalais mooy modèle bi mën a tax Afrique dootul nekkati à la une des journaux parce que ñëw nañ pouvoir c'est des jeunes amuñu benn relais et cetera cetera ñu def ay élections gagné ko nguur goo xam ni moo fi nekkoon dëkk bi am jàmm. alors que dans tout notre espace li am Sénégal amu fa te ñoom soo obligés de mobiliser des milliards xam nga pour lan faj coow yi nekk foofu ak jël en charge les populations donc sur le plan diplomatique mhm. les premiers pas yi mu def mhm. wane orientation changer déjà turu ministère am wan ni ministère bi Afrique mooy priorité wu diplomatie mhm. pas dem dans les grandes instances wane ni xoju ñaan la non Sénégal est bien représenté mais amalu amaluñu retombé dara amuñu ko une diplomatie plus économique d'abord boo xam ni day juru dara mais pas une représentation symbolique boo xamante ni dañ naan oui le Sénégal compte la voix du Sénégal compte <laughs> mais bu dee yow li muy compter amoo ci dara comme retour économique loolu aussi c'est à voir ba pare mu ne priorité bi du du bitim réew bu sori sama étranger proche la mooy ñi ma wër pour que ñu juboo parce que ñun on a un projet panafricain donc je pense que dans les 100 jours yi ñëw kenn déggul impair sur le plan diplomatique génnul wax loo xam ni daa rusloo Sénégal bi mu refee première sortie tey àddina yëpp ñu ngi koy bëgg a mhm. jël ko les mesures sociales yi mu jëlagum gis nañ ko ñëpp apprécier nañ ko te nekkul du populisme naa subventionné tey bu élection yi passé ma ba bàyyi les prix reprendre le dessus et puis les chantiers qu'on a lancé démb rek conseil des ministres foofu laay daaneele dégg nga te xëy na nit ñi bu ñu ko liiree dañuy liir bàyyi mhm. président annoncé na plus de quatre-vingt-quatre projets de loi ni la am naa euh, proposition projet de loi plus de deux cent décrets ak cent dix arrêtés yu ñu war a jël mais teg ci lu am solo ni désormais projet de loi kenn du ko déposer assemblée te décret bi muy àndal ak arrêté yi koy exécuter jëluñu ko kenn dootul jëlee ci ay loi ci caaxaan moo indi tey le problème de la RTS jël nga décret ni da ngay modifier changer mais jëloo arrêté bi indi xaalis bi ci biir mm-hmm. waa ji kon lu mu appliquer déficit rek la koy jural maanaam day am ay bor pour fay mu ne nag désormais agenda législatif boobu la teg léegi yow ko koo xam ni war nga jël 83 projets de loi mhm. kon yaa ngi liggéey au lancé nga ay audit parce que bala ngaa commencé liggéey ci ñetti weer mhm. franchement kon du heure bi lañ naan ñi toog naan na na na na chômage bi mesure sur le chômage mais en trois mois mën nga wàññi chômage bul fàtte ni budget bi moomoo ko mhm. assemblée nationale yilifoo ko donc li ngay def mooy état des lieux dans un délai très court mhm. def les nouvelles orientations architecture gouvernement bi gis nga diñ ko modifier pour que liggéey bi gaaw premier ministre waxaat na ko démb li ko amal solo du jël ay mesures mesures mesures ñu empilé wu dafa bëgg mesure bu ñu jël bu mhm. buñ ci waxaatee conseil des ministres c'est pour évaluer l'application donc cette nouvelle forme de gouvernance ak ni dëkk bi dale mhm. déggoo président tiiñal kenn déggoo ñu xas kenn déggoo ñu menacé comme li ñuy wax nii mais dëkk bi mu ngi ci jàmm amul Carrefour booy dem tey fekk fa euh, la force publique euh, nekk meublé ko. Mhm. ba nga xam ni da ngay defoon ni Dakar ville garnison la. donc loolu lépp dans les 100 jours sans erreur sans anicroche jàpp nañ ni am nañ yaakaar am nañ yaakaar gis nga le ministre de l' agriculture ni mu nekkee ci terrain bi gis nga le ministre de l' assainissement nan lañ taxawee kenn xamul lan mooy xew mais y' a un volontarisme qu'il faut saluer ci ñoo xam ne dañ woon ñii xamuñu état mënuñu téye état donc je pense que loolu dañ ciy sant yàlla. mi ngoog leer na Ablaye Mbow ñu gis 100 jours yi nga xam ne nag moom la ñu jagleloon le président Bassirou